médecine ba ci astronomie bi nga xamante ni doomi Sénégal bii di wuyu ci turu Maram Kairé dañ ko ci sargal daan ci ñëw suñu maam yi daan nañ ko pratiquer ci yeneen fànna problème bi mooy nasaraan si dañ koo jël adapté ko ba mu méngoog jamono di révolutionner mbir yi ak ay création yu yees moment boobu noonu ñu ñoo ngi ci yeneen mbir ba tey jii nii boo xoolee ni ñu jàngalee science suñu réew yi lu ci baree bari dafa des ndax da ngay am bac scientifique ñu exemple université mais boo génnee lan nga mën a inventé lan nga mën a créé loo xam ni dafay am impact njeexital ci dundu doomi aadama yi te moonte benn xale bu ndaw bu ci mel ni Cheikh Bamba Diaby amagul bag mais mi ngi appliqué science mën loo xamante nii ñu am ay doctorat mënuñu ko parce que dafay pratiquer moo tax ni ñuy jàngalee mathématique science physique ba ci science économique dañ ko war a xoolaat suñu réew yi ba doo yamati rek ci calculer trouver résultat mais calcul yooyu noonu naka nga ko mën a adapté ci problème yi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy jànkoonteelu au quotidien maanaam ay pratique ngir trouver solution apporter ay réponses ci ay cas lii moo tax a jóg science. am na réew yu bëri yoo xamante ne dañuy natt weer bi dañ koy calculer ak euh, astronomie ñoom séentootuñu bu ma ci joxee kaaw Turquie par exemple Turquie tey toll nañ foo xamante ne depuis 1978 ñoom dañu jël décision ne du ñu séentu weer dañ ko bind ci seen ay constitution dañuy calculer weer bi fi mu toll juddu na tey ci 11 heures ñoom bu weer bi toppee ci ginnaaw jant bi rek doy na leen. Mhm. léegi nag am na réew yu bëri yu toll ci euh, ay fanweeri réew yoo xam ne dañuy topp ci ginnaaw Turquie. Mhm. Euh, mën na ay njuumte ñun ñu dégg rek ne que réew nangam day julli suba ñu ne ah kon weer bi feeñ na foofu fekk na weer bi feeñul. Madame Kairé bi nag ci sénégalais yëngu ci wàllum science la particulièrement wàllum astronomie maanaam caytu phénomène yi xew ci jaww ji ak lépp lu ko wër domaine boobu la yëngu bërki démb la ko union astronomique internationale mbootaay bi ëmm ñu yëngu ci wàllum astronomie sargal tuddee ko benn astéroïde astéroïde boo xamante ni ñu ngi ko découvrir en 1998 pour ñi xamul luy loolu mooy benn planète bu ndaw la boo xamante ni dafay tourner autour du soleil bu ñu jëlee astéroïde bi ñu dippee Maram Kairé par exemple mi ngi diggante Mars ak Jupiter ci histoire Sénégal mësul am ab doomi réew mi bu ñu dippee mbir yu nu mel donc lii premier pas ci fi ñu nar a jëm jëmi jamono ndax xam naa du ñàkk ñenn ñu ne buñ ko tuddee mbir yi ban njëriñ la ñu amal njëriñ bi mu ñu amal mooy dañoo toll ci jamono joo xamante nii waxuma la guerre entre les grandes puissances pour occuper espace ci kaw suuf defoon nañ benn vidéo spéciale ci naka la dëkk yu mag yi di nangoo suufu Sénégal di ko aakimoo ndànk-ndànk mais yamuñ ci ñoom dëkk yu mag yi ñoo ngi itam ci conquérir jaww ji di lancer satellite ngir moom seen bopp ci wàllum technologie bi nga xamante nii moom mooy arme bi réew yi di xeexee jamono jii li ñuy wooye la gerte de lii mooy enjeu yi moo tax bu ñu gisee dëkku tubaab yi di ñu jaay ay arme di ñu nax fekk ñoom ñoo ngi préparer la prochaine guerre mondiale bi nga xamante nii du doon ay ngànnaay mais ku gën a xarañ ci wàllum technologie xarala yu yees yi ak wàllum surveillance lay doon ku gën a liy xew ci yeneen planètes yi ngir mën fa placer ay la lu ci mel ne ay satellite lii mooy enjeu yi te ñun suñu réew yi dañ ci des ginnaaw ba tax na kaaw Maram Kairé li tax mu war ñu intéressé mooy dafay yëngu ci domaine bu ñu naan astronomie science bi nga xamante ni daf lay permettre nga comprendre phénomènes yi xew ci yeneen planète bi te lii tàkk suñu réew yi comprendre uñ ko maîtriser ko ay victime la ñu yàgg nekk ci li nga xam ni moom la ñuy wooyee la guerre dans l'espace Afrique victime la ci wàllum esclavage victime la colonisation victime la ci première et seconde guerre mondiale suñu continent victime la après indépendance ba ci wàllu médecine boo ko jëlee Afrique dafa yàgg nekk victime ndax suñu réew yi moo yàggoon doon laboratoire maanaam bu tubaab bi mosaan créé seen garab ba jamono jii ñuy wax ak yéen ci ñun lañ ko yàgg testé pour xool ba xam baax na am déet créé nañ fay lago. créé nañ fi ay feebar ak ay yu baree bari kon ñun dañu yàgg nekk victime bi yoon nag suñu borom moo ñu may ay doom yoo xamante nii ñëw ñu nasaraan si ci xam-xam te ñu war leen a xamle ñeneen ñi itam mën a roy ci ñoom Maram Kairé bokk ci doomi Sénégal yooyu noonu ndax am na projet bu rëy rëy boo xamante ni daan ci ñëw ci biir vidéo bi ngir suñu réew bañ a des ginnaaw ci li àdduna gépp di xëccoo mooy maîtriser yeneen planètes yi xool naka lañ ko mën a exploiter ñun itam ngir mën a doxal suñu réew. Je Ici même, dans cette salle, et peut-être ailleurs à Dakar, vos enfants, à Tambacounda, à Saint-Louis, au Bénin, au Niger, au Togo, qu'il y a beaucoup de jeunes qui nourrissent ce rêve, cette passion pour l'astronomie. Et j'aimerais leur dire ceci, et vous dire cela aussi. Continuez à avoir un rêve. Il faut rêver, il faut rêver.

donc li ñu mën a jàpp ci moom mooy benn passionné la li war li dafa am ci li muy def mooy gannaaw bu mu amee bac papaam da ko ne mu jàng wàllum informatique ñu bari Maram Kairé bi yëngu ci wàllum astronomie la ñu xam mais ingénieur la aussi en système et réseau jàng na itam li ñu woowee web design. parce que ci domaine boobu noonu la woy juróom bu góor bëggoon mu exceller mu topp ndigalu kilifaam mais teewul ci beneen wet muy suivre wàllum astronomie bañ na ko ba premier salaire am en tant qu'informaticien télescope la ko dem jëndee. deuxième salaire am en tant qu'informaticien mu dem jëndaat beneen télescope muy ñaar parce que gis na ni lii mooy destin am te ci mbir mii la ko àdduna gépp war a xam. gannaaw quelques années mu xóotal njàngam ak gëstoom ci wàllum astronomie ba 2006 mu décidé quitter France ba mu doon jàngee amoon fa liggéeyam ñu servir Sénégal ci wàllu science. mu créé benn société bu yëngu ci xarala yu yees yi biir Sénégal tuddee ko Orly Soft.

moment bi ñuy wax ak yéen formé nañ ay téeméeri ndaw yoo xamante ni dañuy étudier phénomène planétaire yi di ko gëstu boole di ko xamle à travers ay club yoo xamante ni ñu ngi ko samp ci dëkk yu bare bari moo xam Dakar ak ci yeneen région maanaam ñi ngi préparer relève bi donc li ñu mën a jàpp ci histoire bu ndaw bi mooy patriotisme koo xam ni dem na jàngi bitim réew am fa liggéey di fa sutur lu mënta am Sénégal mu ne ko fa ñukk ne dafay bokk ci liy tabax réewam lii exemple de patriotisme la ba noppi nag am générosité partager connaissance am ak ay ndaw ngir ñoom bu ñu demee ba seen wàllu woy ba amatuñu kàttan bi mu am relève boo xamante ni ñooy yëgale liggéey bi amaana yóbbu ko furaw ñoom fi ko doon njort lii njàngale bu rëy rëy la wàllum bitim réew madam kayri mën na ay mission yu amaam solo ak mbootaay aduna bi ceeti wàllum astronomie muy union astronomique international bi ci mujj mooy diggante 2018 jàpp 2020 mën na ay mission ci jokkalante gi dox diggante planète yi ak yan jeexital la mën a am ci suñu nekkin bu ñu jëlee ci continent bii d'Afrique moo jiite benn société bu ñu naan Africa Space liggéey mooy créer ay microsatellite di conseiller itam bépp kuréel wala gouvernement ngir Afrique bañ a des ginnaaw ci défi yi nekk suñu kanam. membre la itam en tant que rédacteur ci magazine africain bi ñuy la l'Astronomie Afrique donc liggéey bu am solo bi muy amal biir Sénégal ak bitim réew ngir promouvoir wàllum astronomie moo jur distinction barki Demba Ndiaye maanaam dippoo ko benn astéroïde. muy distinction yoo xamante ni la plupart ñu koy jagleel moo ñi liggéey ci wàllum astronomie ba génn àdduna ñu sargal leen tuddee leen benn mbir ci yeneen planète mais moom à l'âge de 42 ans nekk au sommet de sa carrière turam marqué wu ci yeneen espace donc lii fierté Sénégal la. nag biir Sénégal madame Kari mi ngi yëngu ci naka la ñu mën a régler définitivement coow lu weer feeñ naam feeñul bu ñu déggu ci ne science mën a lenn ci saafara si. mi ngi xool du ñu mën a boole association islamique yépp organisé wu ci département bu nekk ci biir réew mi ngir ñu ànd déggoo ci benn mbir ngir wàllu seentu weer bañati jur coow. war nañu mën a am 46 département yépp ñu am fa groupe au moins de 20 personnes au minimum yoo xam ne dañ leen di tàggat ci astronomie. ñu xam nan la ñuy séentoo fan la ñu war a séentu ak yu mel noonu bu séentu weer jotee. département bu nekk groupe boobu dina taxaw def même liggéey bi bu ñu mënee yor ay jumtukaay yu mel nii ay jumelles ñu taxaw xoolee ko asamaan si bu dul loolu it ñenn ñi taxaw séentu ak seen bët comme loolu la charia digal ñu ànd ñu ñëpp bu ko defee bés bu ñuy séentu mën nga rassembler information yi jóge ci département yi Sénégal yëpp mu nekk ni mu wóoree fii. xaw ma feneen de nit mën na toog tey ne gis naa ko bërëb nangam xam nga loolu ñun mënuñ ci dara ndax fekkeewuñ ko mais fii yaakaar naa ne ñëpp mën nañ ànd ne gisuñu weer donc buñ ko defee noonu département par département dinañ mën a dajale xibaar yu wóor ba bu ko commission yi di jëfandikoo day nekk loo xam ne du am werante beneen projet Maram Kairé mooy naka lu ñu mën a intégrer ci biir école yi dès le li ñu wooy science spatiale maanaam xale yi teel comprendre planètes yi ak li ko wër pas mu yem ci ay théorie mais muy lu ñuy làmb di ko daj njàngale bu ànd ak beneen projet boo xamante ni itam am na yéen a samp ko Sénégal mooy créer observatoire national d'astronomie bërëb bu yaatoo yaatu boo xamante ni non seulement dañ fay xóotal njàngum astronomie mais aussi benn espace lay doon bu lay permettre ngay am live and direct lii xew ci yeneen planètes yi. donc lii ay défilé yoo xamante ni maanaam kay relancé wu na ci ngir Afrique bañ a des ginnaaw par rapport ak lii xew ci àdduna bi mais bokk ci acteurs yi apporter changement ak benn touche africaine mooy nit ku ñuul dem ba découvrir lay xew ci yeneen planète pourquoi pas ñu lancer suñu propre satellite ngir mëna mom suñu bop par rapport ak fi aduna jëm li moy enjeu yi te mënul am tant que amul ay domaine yu comprendre aduna ak liko wër ndax lolu moy jitu lepp kon taxaw sel bi tay lolu won ñi lay di gërëm di lay jajeufal di lay di dajé inshallah benen yoon ci benen jangat jangin jëf